taalibe nag li ko jariñ mooy di jëfe ndigal tey moytu ay tere waaw loolu mooy jariñ ab taalibe waaw di jëfe ndigal moytu ay tere loolu mooy jariñ ab taalibe ah te comme moom mooy borom dëkk bi te nee na bëgguma lii ci sama dëkk waaye nan ko ko sàmmal rek te wagar ko waaw waaw te bañ caa ne waaw loolu mooy yëfi taalibe waaw bëgguma lii ci sama dëkk a ah, nanu moytu li muy bañ ci dëkkam waaw waaw waaw nañ moytu li muy bañ ci dëkkam ñun daal foofu lañ ci taxaw salaamaaleykum waa àddina salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum sama mbokku internet sans limite TV yi euh, Magal 2023 ak sans limite TV yéen a ngi nag en direct fi nga xamante ne euh, mooy nit ñi euh, ci gétt gi nga xamante ni macha allah sama sang bi sëñ Abdou Karim Mbacké Falilou fii mooy gétt gi nga xamante ni fii la nag yi nekk macha allah nee naa leen sans limite TV lépp loo xamante ni war na ci màggal gi dinañ ci ànd ak yéen en direct fii ci nit ñi ah, xale yaa ngi ni yéen a ngi waajal màggal gi yéen a koy waajal ah yéen a koy waajal fan lañ nekk nii nindi kër sëñ Abdou Karim sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou sëñ Abdou Karim Mbacke sëñ Abdou Mbacke kenn du moom Sans Limites TV en direct fii ci nindi Euh, ñi ngi fii nag euh, comme ni ma leen ko waxee Sans Limites TV ñi ngi fii ci Ndindy euh, fi nga xamante ni mooy gétt gi kii ñi taxaw nag mooy jëwriñ may sax mu nekk taalibe sëñ bi ay yàgg sëñ bi tey bu ñu taxee moom war na jëwriñ ñi ngi lay nuyu. waaw soxna si maa lay siyaare ah. <laughs> ñu lay fay bu baax baax a baax a baax baax sëñ Fallou ah. jëwriñ ñi fekk la tey ci gétt gi ñi bëggoon xam nooy waajalee màggal gi. ah màggal gi day moom ni ko ñëpp di waajalee rek waaw sant Serigne Touba ne ci rek. waa ci ci ci ci ci ci ci ci li sëñ bi bëgg rek ñu ne ci mhm. waaw mhm. waaw nun nag noo noo noo fii ci ci ci wàllu gàtt yi mhm. waaw waaye jëwriñ ji ñu koy wax Baye Modou Diouf Baye Fall waaw waaw waaw Modou Diouf moom sëñ Abdou Karim Mbacké Fall bu fi nekkul nag man maa fi ne waaw bu fi nekkul moo fi maa fi ne maa fi ne waaw di ko nag ni ko ñëpp di waajalee rek waaw di ko ñu ko ñëpp di waajalee rek waaw sëriñ moom sant ak berne la wax waaw ci loolu rek lañ ne waaw ci loolu rek lañ ne waaw mais yi ko faral di fësal comme boo leen koy indee ak yooyu vidéo yeeg yooyu léegi fësal gi yéen far doo leen ko faral di def waa kër sëñ Abdou Karim xam nga loolu daa amut solo mm-hmm. waaw nit moom bu dee jëf te yàlla tax mm-hmm. euh, biral ko yàlla suñu borom rek te ko yàlla suñu borom njort naane ne moom ay fësal ak ay wane yooy yooyu moom daanaka amut solo <laughs> waaw waaw waaw waaw waaw amut solo waaw sa diggante teg sëñ ah loolu yaatu na mm-hmm. waaw loolu moom du lu mën a leeral <laughs> waaw loolu yaatu na waaw loolu yaatu na waaw loolu yaatu na waaw sëñ Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallou sunu diggante moom yaatu na waaw yaatu na waaw waaw ñu koy ñaanal Mbacke sunu borom guddalaw fanam te wéral ay cëram waaw waaw yaatu na lool waaw sant daal waaw sant di ko ñaanal daal moom gudd fan taw wér waaw ton ànd koog moom ci barkeb sëñ Fallou waaye sunu diggante ak sëñ bi moom buñ ci dee leeral wala ñu koy répété wax dëgg yàlla duñ fi jóge waaw duñ fi jóge wareefu Baye Fall ah wareefu Baye Fall bari na waaw ah, wareefu Baye Fall bari na lool luñ ci mën a wax sëriñ Abdul Karim Mbàkke moom sëñ Fallou day suñu yaakaar tey ëllëg képp ku dégg ay kàddoom ak i ndigalam ah, di nga xam lan mooy waree fu Baay Faal waaw ndax moom ci loolu rek la nekk <laughs> waaw waaw waaw waaw dal teggin waaw makar max laa makar max laa nag li mu dafa bari waaw waaw waaw makar daa bari lool waaw lool sax lool lool lool képp na ku ci tegu ku rek ah yaa ngi ci waree wareefu Baye Fall ndax si Abdou Karim Mbacke mu sëñ Fallu bu nuy wax fu Baye Fall ah, bis bu ne mu wax ci waa bis bu ne mu jàngale ci waaw bis bu ne mu wax ci bis bu ne mu jàngale ci kon képp kuy déglu ay kàddoom rek te te te tegu ci yaa ngi ci wareefu Baye Fall. waaw ndax moom day ab bayfal moo tax mm. waaw waaw moom da charte yi gis nañ eh, diis na charte yi ci màggal gi bari na li ñuy tere bari na te murit ndigal murit jëfe ndigal eh, tey lan nga doon wax tey ci charte yi parce que jigéen ñi am na lu ñu leen teg góor ñi tey am na wareef bu ñu war a def tey ci màggal gi ah, en tant que bayfal waaw Serigne Mountakha Mbacké yal na fi yàgg te wér waaw di ñaanal suñu am di Modou Menda mm-hmm. eh, foofu sax lan waroon njëkke nag mm-hmm. waaw sëñ Abou Mbacké mm-hmm. moom sëñ Fallou sunu bunt ci sëñ Fallou a waxtaan nag na neex borom kër waaw moom moom moom dëkkam sañ na ko waaw sañ na ko ab taalibe nag li koy jariñ mooy di jëfe ndigal tey moytu ay tere waaw loolu mooy jariñ ab taalibe waaw di jëfe ndigal moytu ay tere loolu mooy jariñ ab taalibe ah te comme moom mooy borom dëkk bi te nee na bëgguma lii ci sama dëkk waaye nan ko ko sàmmal rek te wagar ko waaw waaw tabañcaane waaw loolu mooy yëfi taalibe waaw bëgguma lii ci sama dëkk ah nanu moytu li muy bañ ci dëkkam waaw waaw waaw nañ moytu li muy bañ ci dëkkam ñun daal foofu lañ ci taxaw waaw foofu lañ ci taxaw faali seen taxawaay parce que gis nañ ci ay dóore am na ci bay ay wataate bopp gaañaate yi yooyu est-ce que loolu waree fu Baay Faal la waaw man nag day wax dëgg yàlla dafa am foo xam ne mënuma cee sori waaw ndax du sama du sama domaine waaw wax dëgg yàlla waaw mënuma cee sori waaye daal njortu naa ne ñoom wàccuñu ndigal ñoom ñu ngi ci ndigal ndax ndigal waaw ñoom yaakaaruma ko de waaw yaakaaruma ko de waaw yaakaaruma ne wàcc nañ dëggal waaw waaw fooguma ko de wax dëgg yàlla waa mooy li ñu wax léegi rek waxtaan daal na neex borom kër waa comme borom dëkk bi lii la bëgg ci dëkkam ah nan ko ko nan ko ko. yeeg yooyu pause yeeg yooyu tere nañ lépp. ah waaw loolu de yow ñoo ko gisandoo yow gis nga ko yow mi may interrogé. loolu <laughs> daa mel ni charte yi d'accord nga ci. ah bu baax a baax waa bu baax a baax waa d'accord naa ci bu baax a baax waaw bu baax a baax sax 100 pour cent waaw borom dëkk bi moo ko bëgg lim bëgg ci dëkkam nag dañ koy def rek waaw loolu kese la amul leneen waaw Baye Fall yi nag suñu am na Modou Menda ah la jox ndigal li ngir dëkkam bi lim ci bëgg ñoom ñu ñu ñu doxalee ñu ñu ñu doxal ko ko te ñoom mate nañ ko ñu ngi koy def ni ko sëriñ bi bëggee loolu kese la léegi nag ku bañ a juyoo ñoom ah da def ni sëriñ bi bëggee rek. li yow yaakaar ngeen ku ko wàcc ay daan mën na la cee fekk ah njortu naa ko de <laughs> eh, waaw loolu de yaakaar naa ko ah. waaw yaakaar naa ne ku ko wàcc lii bëgguma ci sama kër lii wala lii bëgguma ko ci sama dëkk ah nga ñëw def ko kon kat yow dafa mel ne da ngay def lu neex kon kat mën nga ci am daan waaw waaw kon nan def li sëñ bi bëgg rek waaw loolu kese la foofu dong lañ ne waaw foofu dong ci biir xoor gétt gi waaw ayca bisimilah waaw waaw ayca bisimilah yaa ngi ni nag yi waaw euh, bëggoon nañu xam euh, ci ñaata ñaatam million moo ko xayma bëggoon nañu ah yaabo booy yaa ngi may laaj du diis nag loolu de man mënu ma koo xayma nag moom wax dëgg yàlla waaw loolu nag moom Fall Jaga loolu nag moom mënu ma koo xayma moom waaw loolu moom mënu ma koo xayma moom waaw waaw waaw mënu ma koo xayma moom gétt gi daal gis nga ko nii mu demee waaw sant Serigne Fall lu bu baax waaw di ñaan yàlla suñu borom mu dolli waaw di ñaan yàlla suñu borom mu dolli waaw lan ngay wax sa sang bi sëñ mu sëñ Fall ah kooku lu ma ko wax doyul <laughs> waaw <laughs> waaw lu ma ko wax doyul man daal maa ngi ñaan ci barkeb Serigne Fallou ci barkeb màggal gi yal na yàlla suñu borom guddal aw fanam waaw te wéral aw cëram Mbàkke Balla Serigne Abdou Karim Mbàkkum Serigne Fallou zéro faute waaw diine jamu ko l'islam jamu ko yoonu murid jamu ko waaw mi nekk ci lim mu war ne rek képp koo xam ne nag dañ na ab taalibeem nga ñu koy tudd di la tudd rek war am melo waaw ndax moom ku mu jaxasool kat ku mu jaxasoo moom sëñ Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fall ak koo mën a doon ak foo mën a jóge dootoo bëgg a tàqale koog moom ngir ay jukkoom yu rafet ay jukkoom yu baax macha allah yàlla na fi yàgg te wér kon képp ku nuy tudd di ko tudd rek war ngaa melo ba boo nee sëñ Abdou Karim Mbacke moom sëñ Fall ñu ne ah tigi moo tax moom sunu wax ci moom mënut a mënut a sori lu dul di ko ñaanal jàmm ak gudd fan ak wér te di ko ñaanal a njabootam di ñaan mu yeggale. ak sagoom ci barke Serigne Fall ak Cheikh Ibrahima Fall loolu lañ koy ñaanal waaw waaw loolu lañ koy a baax a baax ak waa sans limite waaw kontaan a a na na na yaatu ba jur ay la noo la gën a bëgg lool waaw noo la gën a bëgg lool yàlla na yàlla waaw bu baax a baax a baax waaw nag ñu ciy jàppale tout tànk yi toog ñu ñëpp ci liggéey bi leen bokk ñoom ñëpp ay doomi moodu baay Fall la ngi fi waaw ñee ñëpp toog ñi ci bëree bëri ay doomi Modou Baye Fall lan waaw waaw waaw Modou Baye nag mooy sunu jëwriñ fii ci gétt gi waaw moom la nu sëriñ bi booleel nu nekk ak moom ñiy toog ñëpp ay doomom lan waaw ñiy toog ñëpp ay doomam lan déedéet mukk oyof na toll ah. musta diis waaw waaw musta diis liggéeyal Sëriñ Tuubaa du diis waaw day oyof toll waaw barke maam ndax ay njëriñ ci nekk yu amatu lor waaw liggéeyal Sëñ Tuubaa ay njëriñ ci nekk yu amatu lor moo tax du diis waaw day neex lool waaw da nga koy def ak fierté di ko def sa di féex di neex waaw noonu rek la demee demewul neneen oyof na toll diisut <laughs> waaw sant nan bu baax a baax waaw sant bu baax jërëjëf yaa booy jërëjëf jërëjëf waaw yal na yàlla faj aaj yëpp nu yàgg koo tewe nag ay at yu bare bare bare bare bare bare bare bare bare barke sëñ Fallou Cheikh Ibrahima Fall sans limite nag yaatu lool waaw na bañ a am limite waaw na dox fépp <laughs> waaw national ak international ci barke sëriñ Fallou Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf macha allah am internetu sans limite yi ñi ngi fii tey fi nga xamante ne mooy Ndindi direct euh, gétt euh, sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou bi nee naa la ndigit ndigal euh, murid ndigal ndigit ndi murid day wéyee ndigal di maytu tere di nangu li nga xamante ne charte yi nga xamante ni moom lañ teg ci màggal gi di wax ñëpp nañ ñëw ci jàmm ñu bisiwaat ci jàmm ñu màggal ci jàmm ñu fekkee ko ay déwén yu bari bari bañ incha allah nee naa la sëñ Abdou Karim Mbacke Falilou sama sang bi kenn du yow yàlla nga fi yàgg te wér sëñ Abdou Karim yàlla na fi yàgg yàlla na fi yàgg te wér sëñ Abdou Karim Mbacke sëñ yàlla na fi yàgg te wér képp ku waa te nu ànd moom ak njaboot gi zéro faute waaw sëñ Abdou Karim Ba comme sëñ Fallou zéro faute waaw macha allah jërëjëf jërëjëf. yàlla na fi yàgg te wér. <laughs> Baye Fall maa ngi lay ziar. ñu ngi ziar baax yaay Fall. daa mel ni yaa ngi ci wàccaay waaw ñu ngi ci wàccaay kay. Hmm. waaw ñu ngi maa doo wataate rek. Ah, du ñu de wante tamit li tax ñuy wate moom da di ndigal. Hmm. waaw ndigal moom dañ ne bu ëppee du tijji bu yeesee du tijji da ciy yem kepp soog a tijji. kon jëfee ndigal li avant ñu lay wat daa gën ñu lay wat waaw. kon yow fu nekk nii koo gis mu wàcc charte bi da nga koy wat. déedéet man bokkuma ci ñu yor ndigal lool noon man loolu laam ñun ko jagleel. Mhm. wante ñun bokk ci ñi. gisee ndigal. ndigal ndigal la rek. Mhm. ndigal moom niñ ko war a gisee mooy nangu ko rek. Mhm. jëfe ko rek boo ko nangoo jëfe ko day oyof lool te da nga ciy daje moom sax waaw. su digganteeg sëñ Abdou Karim. suñu digganteeg sëñ Abdou Karim Mbacke moom ñun dandi ñooy ndongo yi nga xam ne ñoo féetewoo matt mi doo bokk ci kuréelu lawbe gi am kilifa muy sunu jëriñ muy seex lawbe wante ginnaaw seex nag man maa féete fii ci wàllum matt mi féete ci biir kër gi waaw nekk fi pour matt waaw ndongo matt waaw. ci ndongo yi nga ngi waajal. waaw ñu ngi waajal wala pare ngeen. ñu ngi waajal pareegul waaw pareegul ñu ngi fi la ëppee kay di ñaan nag suñu sëriñ bi suñu borom yokk wéram yokk kattanam. ba fi mu bëgg a yegg ci yoonu sëñ Touba bi ko dooleel ko ba mu yeggale ak sagoom ci kàttanu sëñ Fallu waaw parce que maam Serap Fall ndongo yeeg ñëpp fekke ko tamit nag ñëpp daal dajeeg ngërëmal sëriñ bi daal li namu ci bis bi mooy ngërëm yal na nu ko sëriñ Touba defal ñun amandoo ko waaw wér am ñàkk wér taw a ko sëñ defal te bu ñu amee tamit yàlla bu nu beew ci kàttanu sëñ Fallu barki maam Serap. ndigal murit ndigal